waxee benn côté bi mais Médina lañ dëkk ça veut tout ne DJ Niang xarit gis na moom ndeysaan mi ngi noonu DJ Niang la sunu xarit la ah sunu confrère la moom mi nekk Médina TV waaye maa ngi ànd ak ki nga moom moo di Dangar Faye moom mi nekk ci wàllu cadrage bi image yi bu leeree te ah, lépp li ngeen fi gis moom moo leen koy wan macha allah ci biir fi nga xamante ne Dakar TV ndeysaan Youssou waaw ba tey gis ngeen ci biir euh, Médina lii moom moo fi jot am fi nga xamante ne euh, fi la euh, am di Moustapha Tine am ndam lu rëy loolu ci kanamu ki nga xamante ni ndeysaan loolu moom fi am gis ngeen waa Médina yëpp génn di xaar seen doom ji a Tapha Tine keeru ko di ko tasagal ànd ceeg waa Bawol gis ko noonu loolu moom moo nekk ci image yi xaar mu ñëw jóge ci arène nationale ñëw fii def moto yi ngir rek am lu rëy li nga xamante ne am na ko ndaysaan Tapha Tine am na ndam lu rëy ci kaw ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène borom taay si ku xam na Eumeu seen champion la Eumeu Sène daan na fi ku ne sànq maa ngi koy wax ci direct bi ne Eumeu Sène lu muy gagné mbaa lu muy perte ci làmb ndax Eumeu Sène dégg na daali ba noppi Eumeu Sène doon na quatre fois champion d'Afrique waaye Eumeu Sène jël na titre roi des arènes andil na ko waa Pikine Eumeu Sène li raaye yi mbër war am ci làmb moo Eumeu seen am na ko ba noppi waa de nañ dem rek fay topp ambiance bi nga xamante moom moo am ñu wan leen ko gis ngeen borom deux ngi noonu ñoom itamit di wane seen bopp. barke alxuraanu karim waaw waaw ñun Tapha lañuy topp bi bi bi bi bëre seetaan ngeen ko dama ko seetaan bi mu demee ardo bi mu demee ardo noo dundee sama xol bi dafa jeex mais dama dundee yaakaar xam ne Tapha Tine day daan kan ngeen soxla ñun soxla ñun kuñ ñu jox ñu dee ragalu ñu ne kuñ ñu Tapha Tine bëre moom. Modou Lo gerte dëkk bi waaj wal. loolu da ngeen soxla. waa Bawol ñu ngi réclamé Modou Lo. ndax il est ñu am roi des arènes ndax Tapha am na dayoo. waaw ñëwal ah. taxawal nii. ndeysaan. waa Bawol a ngi noonu. waaw sama na set mais tey lu ngeen wax ci victoire bi ngeen am. sama xol set beeg waa. bilaay walaay. li li ma métti woon lépp nag li ma maanaam sa waay faj na ko tey quoi. barke Serigne Fallou Mbaye. ngeen jëm fan ci kan. état yi nii. ñu ñu war dem xam nañ seen bopp. li ñu war a def xam nañ seen bopp barke yàlla Modou kan moo nekk seen kanam Modou la ñëw ñu béré mu jox ñu roi bi barke yàlla Bawol dafa mel ni soxla ngeen titre roi daw daw gi def la war a bàyyi quoi daa war a ñëw ñu béré quoi ndax wiiri jaari ndaare da ñëw ñu na leen revanche non non ñun soxla la dëgër la dëgër la fi la fi nekk lu dul nii la dëgër bëre moom day wàcc a bëre mooy ki bëgg a bëre waaw mais moom kooku moom mooy loolu yaa am nga xam. dawal lan ah li sa waay wax rek la ñuy wax. sa moom lu normal la wax bi moom. bi laay i dara tey bawal bay guy gi dafa tin ngeen am. ñu encouragé kéwél moom tamit lan ngeen di wax. entraînement ah, bool kéwél kéwél dañ koy wax mu dolee entraînement yi rek. ak yokk bañ a découragé. te xam nga mooy daanu quoi bilaay. bilaay. ok merci waaw ay ca mi ngi noonu ay doomu. doomu boo kontaan barki Seydina Mohamed sunu xol dafa set itamaa di koy ñaanal a sans sans suñu moom barke maam Serap Fall maa a nii gars yi ñu may laajte. waaw nee ba da nga yeewu rek def bum. ndeysaan yéen a ngi koy gis noonu waa Bawol yi mbégte ak contentement bi nga xamante ne am nañu ko ci ndam lu rëy kan ngeen soxla kan ngeen soxla loolu la jàppe dina la jox ndox nga naan ba man ñu daan la mais am na ay revanche yu ngeen war a bëre revanche kan nga ñu ñu ko jox ci Sa Thiès Sa Thiès day xaar Sa Thiès day xaar Sa Thiès day xaar ayca mi ngi noonu waa Bawol yi ñoom ñi ngi réclamé Modou Xarañ Lo Tapha na Tapha Tine na wala Mbaye Gouye Gui la Mbaye Gouye wala Tapha mu ñëw mbay guy gi la mbay guy gi la moo daan mbay guy gi la moo daan marle Bawol na mbay guy gi ñëw na noonu mbay guy gi ñëw na mbay guy gi ñëw na moo daan marle xoolal mbooloo mi ko topp tey bool bool yi rakkaaju nañu ndeysaan oh. mbay guy gi am na ndam ci kaw mar la waa Médina ak waa Bawol ñoo àndandoo di sargal ay doom ndeysaan Médina ak waa Bawol ñoo ànd waay waa Bawol Mbaye Gouye Gui Mbaye Gouye Gui ñëw na yéen a ngi koy gis noonu ndeysaan Mbaye am na ndam ci kaw Marley Tapha am ndam ci kaw Eumeu Sène doomi Bawol ndeysaan waa Bawol a ngi noonu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Medina ndeysaan di sargal seen ay doom ay guy moo romb léegi mu des borom Sakandé borom takk ci ripp di tafatin moom itamit léegi mu ñëw saafonteeg soppe yi nga xamante ni ñuy taxaw fii di ko xaar ba bët moom am di Moustapha borom tax cirib déggat foofu ambiance ba faam ndeysaan waa ba wala ngi noonu nañu jóge eh waay ndeysaan boor a ngi noonu